asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum ñu ngi leen nuy fii ci Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi am dañ leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen daal siyaar nañ leen gis nañu ànd nga xam ne yéen ko ànd ak Fall 94 Walf Sénégal depuis at mi yëpp ñi ngi ànd ak yéen di ànd ak yéen di lekk di naan ba benn weer bii nga xam ne nii moo gën ci weer yi. muy weeru koor di weeru ramadaan képp koo xam ne daal tooñ nan la fi wala képp koo xam ne yaa ngi doon dégg sunu kàdd fii ci Fall 94 Walf senegal kàddu yi xaw a juuyoog seeni bëgg-bëgg ñu ngi leen koy baalu bu baax a baax ci weeru sell wii ñu dugg ndax àdduna noonu la àdduna noonu la baaxawoo noonu la tëdde waaye nag suñu boroom dimbali nañu yërëm nañu ba indi ñu weer woo xam ne nii moo gën ci weer yi muy weeru ramadaan nga xam ni boroom xam-xam yi eh, nettali nañ ak wax nañ ci weer la woo xam ne weeru yërmande la weer la woo xam ne loo ci jàmm suñ borom suñ borom dina la ko fay eh, ñuy ñaan nag yaakaar naa ne fi mu toll nii comme yegsi nañ ci weer wii ñuy ñaan ndax jullit bi ngànnaayam lan la mooy ñaan bu ko noppee def rek mooy daanaka mën naa ni perte na te weer wi ci weer yëpp lañu war a ñaan waaye rawatina weer wii ñu nekk ndax weeru ramadan wii ñu nekk nii eh, weer la woo xam weeru njégal la weeru baalante àq la weeru jàppalante la dimbalante mais du weeru xiiroo ak ŋaayoo loolu képp ko ci def nag na la leer ne def nga loo xam ne ni bu fekkee ab jullit nga di def loolu na la leer ne def nga loo xam ne dëppwut ak li weer bi bëgg kan nag ñun ñëpp comme niñ koy waxee rek nañuy baalante àq euh, di jàppalante euh, di yërëmalante maanaam kenn ku ci nekk di yërëm sa morom waaw mu ngoog kan daal euh, jullit bi ñaan la am nañu profito di yokk suñuy jaamu yàlla ci weer wi ñu nekk te xam ne àdduna moom moo baaxewoo noonu mais nag ay jaam rek lañ waaye na ni gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax réew mi ñoo ko bokk ndax gis nga ko tey ci weeru koor yi ngay xam ne réew mi benn bopp la ndax danga ci gis ñoo xam ne nii danañ génne si seeni poos di def di defar ay ndogu di ko séddale néew ji doole yi te loolu Sénégal gii rek la voilà nga gis ni maanaam kenn ku ci nekk dina ñoq ci poosam ngir di góorgóorlu di def lu baax ngir suñ boroom mën ko ci fay ëllëg boroom alal yeeg borom doole yi yërmaane daal baax na lool ñu ngi daal euh, wax ñi nga xam ne ni daal ay euh, mbokki jullit lañ ay mbokki sénégalais lañ nañu góor góorgóorlu te baalonte àq bu baax a baax a baax suñu rëcc rëcc yeeg yëpp góor te góorgóorlu fas yéene euh, jaamu yàlla bu baax daan nañ jaamu yàlla waaye ñu gën ko yokk bu baax ci weer wi ñu nekk wax dëgg yàlla weeru ramadaan la weer la woo xam ne weeru tedd la weeru sell la weeru jéggal la weeru jàppalante la weeru yërmande la kon nag yaakaar naa ni lii leen leen indiloon ci Fall 94 Walf senegal ñu ngi leen di baalu di leen baal ak yàlla nu yàlla boole baal yàlla nañ ko teewe ay déwéni déwéni déwén Fall wal Walf Sénégal lii leen indil